براني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي براني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي له سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات askuruhu zukra allazina sharibu min azbi wa lil jinaani xurribu xustu xayaatan laa turaa li xayri mucjizatan baanat li husni xayri Daaru Salaam Bambouk dëkk la boo xam ne mi ngi nekkee ci département bu Koupentoum région bu Tambacounda digganteem ak commune bu Koupentoum ñu ngi ko xayma daanaka ci juróom-benn fukki kilomètre di dëkk bopp Serigne Mor Khadisy moom moo ko sanc ci atum 1902 Serigne Mor Khadisy di doom ci Serigne Makhtar Penda moom Serigne Tafsir Demba Bouna. waaw dëkk bi di Daaru Salaam Serigne Mor Khadisy moo ko sanc 1902 la sanc Daaru Koungheul jógee fa ñëw Kura ñëw daaru salaam gi sanc ko bi ma ko sancee nag ab diir daaru salaam di dëkk boo xam ne dëkk bu cosaane la fees dell ak taarix jàng ak jàngale alxuraanul karim mosu fee jóg mboolem kilifa yi fi jaar te yilifoon dëkk bi ci loole la ñu nekkoon ñu bari ci njabootuk sëriñ Tuubaa gi di ay doomam ñëw nañ ci dëkk bi nga xam ne moo di daaru salaam bambuk fekk si fi sëriñ Mor Xadi Si waaw fii ñi ko fi njëkk fekk ci njabootuk sëriñ Tuubaa gi bari nañ lool daanaka su ma yeboo ne la ku dul ku dul sëñ soxna bu daal ci ñi nga xam ne nii xam nañ leen ci njabootu sëñ Tuubaa gi ñëpp fekk na leen ko fi ki ko fi njëkk a fekk nag ci ñi gën a ràññee mooy sëñ Fallou Mbacke moom ñëw na fi ñaar fukki yoon ak ñett. ci dëkk ci dëkk bi Darou Salaam Bambok. sëñ sëñ Mor itam bi mu fi nekkee ak diir la ñuy wax sëñ Mourtala Mbacke mu sëñ Tuubaa ñëw fi nekk fi ak moom ab diir mu tàggu ko ne ko da dem mu ne ko déedéet doo dem di man yaa may jullee sëñ Mourtala nekk fi lu mat juróom-ñaari at nekk fi moom ba sëñ bi wàccab liggéey mu jullee ko door a dellu Touba. Serigne Saliou Mbacke itam fekk na ko Daaru Koungheul nekk na faak moom lu mat ñetti at moom itam nekk na faak Serigne Mor Khady ci loolu bàyyi ko fa door a ñëw siyaara barab fii nii door a delluwaat Touba. Serigne Mor Khady Sy mi ngi fi bàyyi ko wuji suñu borom ci atum 1942 am na ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo ko fi wuutu. Serigne Mor Khady Sy nag bi mu fi bàyyi ko xalifaam Serigne Adama Sy la njëkk doon. bi mu fi jógee Serigne Mokhtar Gassane mi daan naafile ci jumaay Touba ji. Mokhtar Marème tegu ci. ba mu ci jógee sëñ Matar Xadim ñii nga xam ne mooy jàng sëñ Abdou Karim tegu ci mu fi jógee sëñ Dan tegu ci bi mu fi bàyyi ko sëñ Assane tegu ci ñoom ci sëñ Assane bàyyi ko xalif baa ngi fii ci kër gi muy sëñ doom la ci Serigne Mor Khadisy mi nga xam ne moo sañ ci dëkk bii di Daaru Salaam Bambuk moom Serigne Makhtar bi mu ñëwee ci dëkk bi ginnaaw bu mu jàngee alxuraanul karim ba noppi ak xam-xam dafa ñëw topp ci ginnaaw magam ji nga xam ne moo fi nekkoon ci jamono yooyu. Makhtar Khadisy mi fii moom dëkk bi ñuy wax ja ja boo déggee ñu di ko wax njool jaabi mooy jaabi la jàngee alxuraan jàngee fa xam-xam jàngee fa lépp bi mu ñëwee nag ñëw fii sañ ci fii ñoom dañuy def kenn ku nekk doomi sëñ Modou Khoudoss yi ñu jox la benn dëkk moom yàlla def ñu jox ko dëkk bi mu nekk feek magam topp ko toppin wu rafet boobu am na ci dongam yi am na lu mat juróom benn fukki donga waaye teewul dafa ànd ak magam bi ñuy wax suñu adama si topp ko toppin wu rafet ba mu xëy ko gërëm ko sampal ko daara ji mu tàmbali daara ji nag daara ji nag moom ñi nga xam ne nii ñoo ci ëpp ci ak njàmbaar nga xam ne njàmbaar gi ñu fi def moom kenn defu ko mooy sëriñ Abdou Karim ndax bi muy ñëw fii ci daara ji am na ñu fi nekk sax waaye xam sa bopp nag moom ñu ko def yëpp ci moom lañ ko tàmbalee mm-hmm. Eh, sëñ Abdou Karim fekk na la ci daara ji man fekkante nañ fi daara ji maag sama mag bu ñuy wax sëriñ Modou Mokhtar si moom xaritam la woon lool sax mos na day da koy nettali waxtu wane ne suñ man sëriñ Modou Mokhtar de sama xarit la mos na ma reyal sax lu ñuy wax am gàtt ah, muy ay berne yoo xam ne man ci la ma jàppee ba moom mosul gent ndax booba ku ñuy wax rakkam bu ñuy wax sëriñ Saliou si moom sëriñ Mokhtar ñoo bokk benn baay moom moo bi sëriñ Mokhtar duggee ci kër gi da koo bàyyee kër gi mu nekk foofu mu jël daara ji toxal ko ci biir kër gu mag gi mm-hmm. ku ñuy wax sëriñ Saliou si moom itam doom la ci sëriñ Modou Khalifa moom moo nekkoon ci biir kër gi bi nga xamee ne nag Serigne Saliou si Serigne Saliou si dem na euh, ay doomam nekk bi sanc ko ku ñuy wax Serigne Malick si nekk ci biir kër gi bi Serigne Abdou Karim ñëwee na soxla pàkk bi ne da cee soxla loo xam ne day toll ci juróom benn fukki meetar carré ngir mu tabax ko def ko daara tuddee ko daara ngir njukkalee ko sëñ moom mu da ngeen fay toog ndax xam gi nga xam na sëñ Fallu moo ko def ci moom moom itam mu jëf ko ba am ngërëmal sëñ Maxtaar Xadi mu def ko ci moom boo jëlee sëti Sëriñ Tuubaa yi ñu ci bëree bëri fii ci Daaru Salaam Bambok fi la jàngee alxuraan alxuraanul karim tàmbalee ko sëriñ daam atta ku ñuy wax euh, sëñ daam atta mbàkke itam ci ñi fi njëkk a jàngee alxuraan ci la bokk ku ko jàngal moom sëriñ Maxtaar Xarit moo ko jàngal sëriñ Maxtaar Xarit mi xam ne moo moo jàngal sëriñ Abdou Karim Mbàkke moo moom ci Mbàkke Mbàkke ñi fi jiitu moom ci la bokk sëñ Daam Atta sëñ Daam Atta mooy ki nga xam ne daal yaakaar naa ne moo ubbi daara ji ci Mbàkke Mbàkke yi xam ne moo fi njëkk a jàng sëñ Maxtaar li jaar ci loxoom mm-hmm. na lool mm-hmm. dama Daam Atta mm-hmm. seen Damaat. fii la jàngee la jàngee. bi ñu ko fi jëlee di ko yóbbu mu nekk xalif. am na fukki at ak juróom-benn du ko weesu. kon fii mhm. nga Karim. Mhm. mi nga xam ne mooy liggéey liggéey bii. Mhm. ak sëñ Jiilim sëñ Fall. ñëpp jaar nañ. waa kër sëñ Mouhamadou Diop bi boo demee. yow sëriñ Abdoul Ahad. sëriñ Baara Mbacke. ñëpp jaar nañ. waa kër sëñ Mourtalaay bu ma fàttewul sëñ Fallou Boussa jaar na ak Abdoulahat ak sëñ mustafa mi nga xam ne fii la nelawee ñu ñu yóbbu ko Touba. doomu si Moustapha doomu day day tuut tànk doon tuut tànk fii la ko Touba jaar ci daara yi sëñ Matar Khary ko ci sëriñ Mourtala Mbacke fi la jaar sëñ Mourtala bi ñu ko fay indee dafa àndoon doomi suñu sang bu ñu koy wax sëñ Abdou Samad Mbacke ñoom la fi sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Abdou indi dong yoo xam ne ci seen i seen i dong lañ ah, bu loolu wee ñi nga xam ne ñooy waa kër sëñ Bandoumbe yi sëriñ Atex Mbacke sëriñ Seex jëpp fi lañ jaare ah Daaru Salaam li jaar ci ay Mbacke Mbacke te man ñu jamono ñoom bari na lool sëriñ maxtaar si bi mu fi bàyyi ko wuju suñu boroom taxul daara ji gent am na ñu ko wuutu ci liggéey boobu di ko wéyal ba ci atum 2023 bi ñu ngi fiy jàngale alxuraanul karim taalu jàngukaay bi mësta fay waaw ginnaaw sëriñ maxtaar ku ñuy wax euh, sëriñ basiiru si moom sëriñ mbay si moom moom la sëriñ maxtaar dëkkoo woon da ko jëli mu ñëw fekk mu ngi Touba di jàng xam-xam bi mu jëlee indi ko ne ko damaa bëgg nga nekk sama pegg bu ëllëgee lu yàlla def nga xam ne kon loola la yàlla def waaye daara ji nag dama la ko rafaate ku ñuy wax suñ basiri si doomi suñ mbay si léegi moo yor daara ji mu ngi fii ci kër gu mag bi nga xam ne mooy kër sëñ Mor Fadé sëriñ Abdou Karim Mbacke moom Cheikh Mouhamad Fadal ñu gën koo miin ci sëriñ Abdou Karim borom makaarimal axlaax ji la ñu jàngee waaye ràññee fi woon lool sëriñ Abdou Karim bi nga xam ne mu ngi boobu man maa ngi toog tool ni tuut tànk yële mu di ji bindal suñu àlliwa yi dañ daan wax ne nañ njëkkalante ji bind suñu Abdou bindal ñi ndax ku bindal da ngay gaaw a mokkal waaw bi ñuy naar ci daara ji hmm. ku suñu Abdou Karim bindal da ngay gaaw a mokkal lam la bindal da a mokkal hmm. daaru poobar ga nga xam ne mooy tool ya suñ ci daan dem dañuy yor welo sëñ Abdoulaye tam sëñ Mahamadan Job bi hmm. dégg nga sëñ Baaraam sëñ Mourtala Mbacke ñoo ñëpp dañu daan yor ay wala seex sëñ seex ba ñu ba am na ku ñuy wax sëñ aas euh, alaaji mbàkke ñi koy moom am na daar sax fii bu nekk ci daar ji dafa amoon yoon woo xam ne ñellu aas lañ ko tuddee woon ñellu aas yaa ne moom ci lañ daan waree wala yi suñ ci toppantaan jëm fubar ba dab sëñ ma saa xëdi <laughs> ngeen defoon rek ngeen toog ba mépp nga àgg ca tool yi ngeen ñëw di ma dab <laughs> <laughs> bu ko defee ñoom àgg ca tool yi demee ñoom bu se moom dooñ moo daan dooñ si Mourtala daan dooñ moom la ko si waaw daan dooñ yor goppam di bay euh, sëñ Matar xarit fonkoon na mbàkki mbàkki yi ba nga xam ne beneen am beraloon añam añ bu ndaw boobu ceeb yombut waaye ñoom dañ daan beral na añ bu ndaw ñu koy ko taw ñu tuddee ko añ bu ndaw bi ñu ndoog yi dañ tànn xaaraan sëñ Abdou Karim nag moom ci boppam bu ànd naa na sëñ jii ñu jëm ci àll ba am na détenaire boo xam ne bu ñu fa tolloon sëñ jii day toog di bind sëñ Abdou Karim yàlla na nga fi yàgg sëñ Abdou Karim yàlla na nga def nangam sëñ Abdou Karim yàlla na nga def nangam loolu daan bind ci ndet leer bu ma tet leer fees moom sëñ Jilim si Fallou moom la daan def ñu dem nekk ca tool yi ànd ak dong yi di liggéey sëñ Abdou Karim li ñu ko xamee woon fii moom wax dëgg yàlla tegu ci aw yoon mbooleem ak ñi fi nekkaloon ak suñu sang yi boobu suñu sang yi boobu sëñ Fallou fi la doon jàngee ñoom ñoom ñëpp ñoo bokk ñoom ñoom ñëpp ñoo bokk waaye moom daal li tegoon na ci yoon boo xam ne daara ji goon yëpp ko bëggoon waaw am na benn bis maanaam ci xetal doomu aadama yi benn bis dara xew ma suñoo dem pouvoir di liggéey bu yàgg benn sàmm dugal na ci tool bi sam baa ngi fii lu dëkk bi Moussa Ba ba mu na nay ci tool ñun dong yi jàpp si Abdou Karim xam ne ki buñ ko bu ko bàyyi ñun danañ ko gaañ mu ne e dong yi taxaw leen ma waxal leen ma ni ñuy ni war a def pël bi dal di jël pël bi yóbbu ko ba nële mu sëgg ci nopp bi daan ko bu la jong yi <laughs> ba ba nga daw de daal di ko sooy waaw sëñ Abdou Karim moom bi mu tàmbalee sooy dafa yàgg ci daara ji la ko tàmbalee waaw loolu liñ ci mën a fàttali loolu boobu moom dana dafa dafa bëggoon njàmbaar bëgg teraanga ba nga xam ne daf daan dugg ci àll bi di wut ay cokkeer ak ay naat di ko ñëw di togg di ko bokk ak mbokkam mbokki mbokki mbàkkam yi daan na togg aw ay ginaar ba mu ñor mu yor ci nekk ci maxtaar xar yi jox ko nga xam ne booba day fekk daara ay une heure wala deux heures lay moom li mu yor nii da koo jënd ci si ñu bëri dañ ko daan roy ci yooyu jamono daara ji nag tolloon na jamono rappoon na lool Serigne Abdou Karim Mbacké jóg ñëw ci dëkk bi fas yéene yeesalaat daara ji tabaxaat ko moo tax mu liggéey fi bâtiment bi nga xamante ni ngir gën a dundalaat njàngum alxuraan mi nga xam ne moo mës am ci dëkk bi nga xam ne moo di daaru salaam bambuk kër gi nag guddee na juróom fukki mètre yaatoo juróom fukki mètre lépp loo xam ne mënta ñàkk ci daari alxuraanul karim def nañ ko ci. waa fii de ñu ngi fiy ñëw maanaam ci weeru tubaab le 4 juin. deux mille vingt deux mooy bis bu ñu fi njëkk ànd ak sëñ bi ñëw war a tàmbali liggéey bi la cinq juin doon bisu dimanche ci lañ tàmbali liggéey bi. de maanaam daanaka mu ngi fi ñëw digg bëccëg naaj bu tàng jër rek daanaka jege nay waxtu tisbaar wala ginnaaw tisbaar ginnaaw tisbaar sa laay wax lan fi agsi ban dikkee maanaam ci barab bi comme ni ko Baye Mourtala waxee ñu fekk mu doon ab pàkk. waaye bi sëñ bi dikkee lan fi lan fi def xajul ci barab bi mm-hmm. am na ku sa si barab bi ku naan sëñ Malick mm-hmm. sëñ bi wax ak moom mu randu ngir maanaam ñu mën a mottali li na xam ne loolu lañ war a def fii lu mm-hmm. sëñ bi am na nu mu jëflanteeg moom ci wàllu woowu waaye lépp yeween rek waaye sëñ bi moom bu mu bu nu wanee lim nu war a leen fi war a def muy la kaat boobu ñuy wax mu dafa wàññeekuwaat dem Touba. dal li fi bàyyi ñun dongo yi ñu ngi ànd ak jëwriñ ju naan sëñ Moussa Diouf mooy entrepreneur boo xam ne si lépp lu ñuy liggéeyal sëriñ bi sëñ bi da koy booleek ñun ñu ànd ak moom ci liggéey boobu déedéet fi moom Baye li ñooy maçon yi ñooy maçon yi ñooy lépp rek matériel bi di ñëw dina dina fekk waaw daara ji nag dañ koo séddale ay kees keesu ndongo yi mbaar mi nga xam ne fi la ñuy jàngee keesu sëriñu daara bi ba ci kees yi nga xam ne dañ koy jagleel ay soxnaam. fenn fu ci nekk ñu liggéey ko ci liggéey bu mucc ayib. yi ngeen di gis maanaam juróom benn néeg la wet gi ñett wet gi ñett maanaam mooy keesu donga yi am na kees biir keesu donga yi muy juróom benn néeg yooyu néeg bu njëkk bi na xam ne moo féete sa loxo càmmooñ boobu moom suñu da koo def mu doon néegu gan waaw kees sëriñu daara bi moom mu ngi ca ca biir soo yàlla ca biir ginnaaw boo rombee mbaar mi sa wetuk ndeyjoor sëñ bi dafa ne sëriñu néeg ak sarale foofu mooy kees sëriñu daara bi keesu boppam foofu ay soxnaam tamit ca wetuk càmmooñ sëñ bi dafa ne seen keesu bopp muy ñaari néeg yi nga ne mooy kees soxna maanaam sëriñu daara bi noonee la barab bi tëddee am kees yi kees bu su nekk rek ànd ak ay wanagam muy muy su nekkee bu keesu keesu néegu gan gi ànd naag wanagu boppam su nekkee donga daara yi seen kees yi ànd naag wanagu boppam su fekkee sëriñu daara bi moomu keesu boppam ànd naag wanagu boppam fekkee kees soxnaa mi tamit ànd naag wanagu boppam. waaw mbaar bi ci digg bi soo duggee fii ci biir daara ji mbaar bi ngay jëkk a jot mooy mbaaru dongo yi waaye soo soo demee ba jàll mbaar moomu nag bëgg a jàll si kees suñ daara bi am na mbaar gum sosalool foofu mooy maanaam mbaaru maam sëriñu daara bi moom moom mu ca biir moom waaw. xam ne jotewul ak dara maanaam keesu maanaam maanaam maanaam mbaaru donga yi waaw. liggéey bi nag taalibe yi nga xam ne Serigne Abdou Karim Mbacké ñoom la teg liggéey bi ci seeni loxo ñu def ci Pastef ba liggéey ko ci juróom-ñaar fukki fan ak juróom-ñeent. maanaam euh, bis yi mënoon ko tënk comme ni mu la ko waxee le 5 juin lañ tàmbali liggéey bi waaye lépp dañ koy tënk maanaam si si soixante-dix-neuf jours muy maanaam euh, juróom-ñaar fukki fan. ak juróom-ñeent. maanaam mooy bis yi nga xam ne moom lañ tënk ci liggéey bi lépp. ëpp di yeesut waaw bis yooyu. dëkk bi nag donte amagul courant sëri Abdou Karim Mbacké waajal na fi ay làmp yoo xamante ni ay solaire la def ko ci biir daara ji waaye noonu la ko yaatalee ci biir dëkk bi ci pénc mi ak yeneen mbedd yi. ginnaaw bu mu defee ci biir daara ji ay làmp làmp yooyu da ko doxal daanaka mu dugg ci biir dëkk bi làmp yi wër na pénc mi dugg na ci mbedd yi. dem na ba àgg fu naan escale mooy marché bi sëñ bi def na fa ay pot lampe waaw ngir dundalaat dëkk bi waaw. ginnaaw bu mu liggéeyee kër gi ba mu àgg sëriñ Abdou Karim Mbacke dafa fas ni soobu ci yeesalaat jumaa ji nga xam ne moo nekkee ci pénc mi liggéey bi jamono ji taalibe yaa ci. waaw kër gi moom ginnaaw bi mu noppee sëñ bi moom bi mu xoolee jëmmi jàkka ji sa tàmbali sax ba mu gisee miir maa miir bi fi njëkkoon nekk miir bi mel lu ràpp dafa bëggoon maanaam dafa dañoo wax ne dafa bëggoon ñu soppi mur bi daanaka mooy miir bi ngay gis nii maanaam la nekkoon li fi nekkoon dañ koo daaneel nag def fi beneen miir bu yees waaw ginnaaw miir bu jàll it incha allahu jëmmi jàkk ji dañ koy dañ koy song moom ci liggéey bi la bokk. da ngeen defaraale lépp rek duñ bàyyi dara su neexee yàlla. mboolem waa dëkk bi nag sant nañ bu baax a baax a baax Serigne Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaax ci taxawaayam ci daaru salaam bambuk ak yite ji nga xam ni def na ko ba liggéeyaat daara ji ci liggéey bu mucc ayib méngook jamono ak ni muy taxawoo dëkk bi ci yeneen i fànn. kon loolu ñun ñu ngi ciy bëgg di ci sant sëñ Abdou Karim Mbacke di ko ñaanal guddal aw fanam ndax moom jaloor ji nga xam ne nii def li nga xam ne nii mooy fépp foo xam ne fii mu kalaf nekkoon na fa te bàyyi koo fa dana fa samp potob lamp nekk fii mooy kër fan ñu di ko limal kër yi ak ñam xamoon ñëpp kenn ko ne mu yóbbu fa potob lamp samp ko fa te loolu da ko jëflante woon ak ñoom jëflante bu rafet boo xam ne bii ñu fi jaar bëri waaye jëf ñu mel noonu nag gisaguma ko ko def ci dëkk bi moom dëkk ñun ñoo xam ne ñoo nekkoon Sëñ Mataar Xari te di dongay Sëñ Mataar Xari ñun wax dëgg yàlla liggéey bi daf ñoo yéem yéem gi mu ñuy yéem xam ne Sëñ Mataar Xari mi ko jàngal alxuraan amul benn doom bu góor benn doom bu jigéen la ko yàlla may kon su fekkoon ne Sëñ Abdou Kan duul ngir yàlla dong tax a ñëw fii du fi ñëw ndax ngir yàlla mooy koo xam da ngay def te yàlla tax yàlla def te yàlla tax na mooy da ngay da ngay dem di defal koo xam ne xam nga bu fekkoon doomu simital xarim dañuy wax ne dafa wël bëgg wëla daan teg doomu simital xarim ay simital amul amul doom ju góor ñu ko fi taxaw loolu ay doomi xol rek la am kon nag moom bu wàññeekoo ñëw def lii ci dëkk bi ñun dañ koy sant di ko gërëm te di ko ñaan mu yàgg fi te wér ñu gis Abdou moom ñun ñun waa Bambuk lu ñu koy yàgg fi wér bi yëpp am nga liggéey na kër gi ni ko sëñ Rijal waxee ba mu mu wàññee ko xool barab bi xam ne barab bi méngoowut ak euh, barab bi mu ne kon na songaat barab bi loolu moo indi liggéey bi kon nag xam nga ne kon ñun ñun dañuy bëgg mu noppi loolu dayut mu del bi indi ay làmp dugal ko ci biir dëkk bi ba ca ba ca marché def na fa ay làmp mm-hmm. xam nga kon kooku wëlër la dara taxul mu def ko nag mm-hmm. nda ndare muy simital mu ko doon jàngal fonk ko mm-hmm. ak bëgg daana fi ñëwoon am na yon woo xam ne dafa jógee Ndakaaru booba moom Ndakaaru ñëw ko Touba dafa jógee Dakar ñëw fii sëñ ba omo sama kër dama tey dama am gan. sëñ Maxtaar sëñ Maxtaar mu ngi ci ma ne ko ah ma ñëw nuyu ko mu fay ma mu ne ma ah, sëñ Abdou Karim moo fi ñëw sama sëñ Abdou Karim moom loolu laa wax sama sëñ Abdou moo fi ñëw andi sëñ Abdou Karim keroog li mu andiwaale fii benn kat-kat bu ñuul la fi andi woon da koo sarse ba mu fees diggante la mbàjj ay yére ay sijaada pom café suukar da ko fi andi wul ma man mi suukar si ak kafe ga sëñ bi jox na ma ci ne ma barka ma ma demee kafe ga naan ko dama ko gas suul ko sama kër waaw moo tax kafe manqué wu fa de xam nga lan fay manqué waaye kafe ceeb moom ma ci xam bëri moo ko bëggoon wax lépp dañ fi yàgg ndax man juróom benn fukki at ak ñeent manqué ci dëkk bi mosuma koo génn liggéey bi nga xam ne nag sëriñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaax teg na ko ci loxoy taalibeem yi mbégte mu kawe kawe lañ ci àndal bi fii mënu indi bëggal nu njariñ ak bëggal nu ngërëmal yàlla moo tax mu indi nu fi ndax ku la tabax looy daare daare alxuraan nga wëlbatiku yóbbale si jàkk ji na xam ne si liñ jàngee ci daara ji fa koy fa lañ koy tare kon loolu tawféex la kon ñu dongay dañuy sant rek ñun dongay daal duñ def loolu di gën a sant sëriñ bi te it suñu mbokk ma mbokk dongay ñu gën a góorgóorlu rek gën a jaajuwaat gën a takkaat laxasaay bi waaw xanaa taxawuñu ci wet gépp rek moom sëñ bi wax dëgg yàlla soo gisee saa ne cant gi moom dañ koy biiral saa su ne daf nuy taxawu ci wet gépp maanaam fu mu mënti nekk muy daaru salaam muy këru diini yooyu ngay wax fu ci dem dina yëkkati téléphone am dina woo dina nemmeeku di laaj li ngeen liggéey fu mu toll naka ngeen nekkee foofu xam ne kàddoom yooyu ñuy dégg sax ab soññee la suñu jëmm yi fii it daanaka mën nañ ni sànq leen mujjee leen mujjee dégganteeg moom waaw ndax saa su ne mu ngi nemmeeku di woote liggéey bi di laaj lu ne fa mu ne ak na mu ak ak ak fu mu toll muy ci biir daara ji muy ci biir jàkka ji lu si nekk mu ngi koy maanaam mu ngi koy gëstu te loolu lépp lu ko waral mooy nemmeeku dongay seenum nekkin rek te it maanaam seetaanunu ci dund sunu saa yun fi ñëwee sunu dund lépp moo ko yor daf noo saxalal ab njël di ñu yónnee ceeb ak diw ak la mu war àndal lépp donc ngay daal seen nekk fii wuutewul ak seen nekk Touba. sëriñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaax nii rek lañu ko xamee muy taxawu jaam yi daara ji nga xam ne liggéey na ko fii ci Daaru Salaam Bambouk di dëkk bi nga xam ne fi la jàngi alxuraanul karim lenn la rek ci liggéey yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy def ci biir réew mi ak ci bitim réew. la maamam ju tedd ja di cheikhul xadim nekkee woon ak waajuram wa di cheikh Mouhamad Fadal ci loolee rek la nekk muy liggéey. ak jaamu yàlla huwal karimul akramul mukarrimu waliyaminu laa yarimul karamu muhammadul wasilati wa junnati an kulli sooin waasan wa jannati